guise. bu mu bi ci xibaaru digg bëccëg yi egsi nañu ci moo di gis-gis li ñu ci waxtaane tey ji wàllu wér géram la jëm rek ci euh, jafe-jafe yi nga xamante ne ji kon barabu fajukaay yi ci réew mi amee nañu ko ngir euh, lijjanti cas sévère cas grave yu bari yi ñu nimiku ci woppi coronavirus ji loole ana nees def ba saafara ko ak ca fan la gën a fëse mooy li ñuy waxtaane ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ànd ci waxtaan wi musa Moussa Sam Daf mooy directeur hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay fàttali na hôpital la boo xamante ne ji am na benn centre de traitement épidémiologique bu fa nekk euh, sëñ bi Daf maa ngi lay nuyu. waaw sëñ bi Ndiaye ñu ngi lay fay auditeurs yëpp. jërëjëf am mbégte mu yaatu ci ni nga ñu bokkalee see ci waxtaan wi ngir ñu sottantey xalaat gis nañu ci jamono ji nga xamante ne ji coronavirus bi li ñuy wax système sanitaire au Sénégal dafa bari euh, maanaam daal nu mu ko néewalee doole du ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp la mais ñu waxtaanee suñu bos euh, euh, ñu ci am ay cas grave ak ay cas sévère ci ci Covid 19 bi taxawu leen doon lu jafe lool jafe-jafe yi fan la ñu gën a fëse non jafe-jafe yi fi ñu gën a fësee mooy yéex a ñëw malade yi surtout ci ci hôpitaux yi parce que dafa am ñoo xam ne daanaka dañuy feebar mais jàpp ne grippe la rek wala pali toog di jëlal seen bopp ay garab euh, daanaka bu demee nag ba commencé désaturé boobaa nag ci la ñuy gaawantu dem ci hôpitaux yi day fekk nag feebar bi sori na bu boobaa dañuy nekk soit cas sévère wala ñu nekk ay cas cas te bu boobaa dañuy gën a soxla lu ñuy wax oxygène dañuy gën a soxla également réanimation mais fi may wax ñëw nii Sénégal tey jii am na 21 centres de traitement ci biir euh, ci biir réew mi 22e bi mooy bi nekk Toscana bu ubbi Touba mais ci wàllu lalu réanimation yi ñu am ni tey daanaka am nañ ci 68 lal te loolu loo xam ne du ñu mën a yokk la parce que loolu day représenter rek 21 pour cent ci capacité euh, lalu réa yi ci hôpitaux yi parce que bu ñu fàtte ne aussi am na yeneen xeetu feebar yoo xam ne hôpitaux yi ñu ngi leen di jël en charge mais tey jii bu ko soxlaa chaque hôpital mun nañ la wax nga yokkaat bu may bu ma jëlee exemple hôpital Dalal Jàmm si lits de réanimation la ñu amoon tey jii nii yokk nañu ba douze lits kazalika Fann kazalika Dantec ku ci nekk ñun mën ngaa mën ngaa yokk euh, ensuite am na ay hôpitaux yoo xam ne tey jii nii ñu ngi waaj a tàmbali lu jëm ci Kédougou Touba Sédhiou Kaffrine ak aañam ñu wax ni également am na hangar yoo xam ne mu ngi nekkoon ci gaaru pèlerin yi am na fa 66 lal yoo xam ne 33 yi mën na jël cas grave am na 33 yoo xam ne mën na jël cas sévère loolu yëpp pour wax ni rek jam ñaajo mu ngi waajee yokk également Dantec am na fanweer ba 40 lal yoo xam ne tamit ñu ngi koy fay ñu ngi ko fay xaar loolu yëpp pour wax ne rek système de santé bi euh, dañu am dañu nekk en alerte nekk en veille à chaque fois bu ko soxlaa ñu xool naka la ñu yokkee mais bu ñu fàtte ne aussi am na yeneen xeetu feebar yoo xam ne tamit ñu ngi reyee te yooyu aussi dañ leen war a jël en charge. ci sa biir yi wax wax nga loo xamante ne dafa laaju taxaw seetlu ndax da ngaa junj ñaar mu di cas grave ak cas sévère xëy na boo boo jànguli tubaab wala muy noom paj doo xam lu leen wuutale ak bu ca yées. waaw waaw effectivement bu ñu nee lu lu lu sévère moom wax dëgg yàlla mooy loo xam ne dafa laaj nga dem ci biir euh, réanimation hmm. cas grave bi mën nga bañ a nekk réanimation mais effectivement nga soxla assistance respiratoire mooy maanaam ñu mettre la sous sous lunette kon ka kon cas sévère moo moo gën a yéeme waaw moo gën a yéeme wax dëgg yàlla hmm. waaw donc euh, di wax nii rek maladie effectivement bu ñu feebaree déjà parce que dafa am loo xam ne moo jiitu feebar bi mooy fonk mesure barrière yi nga xam ne digle nañ ko tere xew-xew yi tere daje yi respecter distanciation physique bi jël say masque vraiment loolu mooy premier xeex bi deuxième xeex bi nag mooy boo feebaree am loo yëg sa yaram nga bañ a toog di faj sa bopp nga dem ci structure sanitaire yi boo fa demee également lu ci lu kenn la jël en charge mën na wàññi également cas grave yi wala cas sévère yi mais bu demee nag ba sévère ba grave on est obligé ñu jël la ci au niveau des hôpitaux réa te loolu yëpp mën na ñàkk donc faggu bi moo gën wax dëgg yàlla faju très bien jërëjëf euh, euh, Moussa Sam Daf maa ngi lay gërëm bu baax a baax fàttali auditeurs yi ne yow yaay njiital hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay ñu doon andi sa xalaat ci li ñuy waxtaanee ci gis-gis geneen gan gi ñu doon séntu yegg si na mooy docteur Babacar Niang euh, directeur bu clinique Souma assistance docteur maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu monsieur Dombay. laaj bi moo di lu aju ci cas gravi ak cas sévères rawati na ci jamonoy coronavirus gi jafé jafé yi nga xamante ji système sanitaire u Sénégal amé na ko ngir gérer ko gis-gis ban nga ci am. ah gis-gis bi ma si am daal mooy dèjà ñëpp ñëpp ay jàmbaar hmm. amul kenn ko dellu ginaaw bon maa ngi félicité waat encore ñiy faj ñëpp dolli ci sama vraiment personnel bi 125 personnes yo xamné ne kenn porte wu ci malade donc loolu déjà euh, té def naa amul benn service euh, bu ñu mën a ŋaññe tey ci ci jóg ci affaire bi. c'est malgré tous les difficultés yi ñu am nag ci considération bi ci paiement bi ci matériel bi voilà mais ñun nag nee naa la ñun privé la ñu bon affaire yi am na nu mu demee woon ba ñun urgentiste la ñu maladie dañuy ñëw ci ñun mën nañu cas yëpp la ñuy recevoir. waaw li moom euh, da nga ko junj sànq ñu waxtaanee ci moo di ay privé ngeen. Euh, ci wolof la ci wolof la. waaw ci wolof la léeg-léeg français la woon sànq non. waaw ak Souleymane Niang bi yoon nag man la maak yow. ngir ñu ah, waxtaanee ponk bi. dafa dafa surtout surtout la en wolof. de parce bu français la ñu defoon. waaw waaw ba tey même même la rek mel na ko. voilà amul différence. loolu li may wax léegi en wolof euh, def naa waxuñ ko woon de. déedéet déedéet ay ca comme waxtaan la leeral la gindikunte la moo tax pas forcément li nga wax ci wolof euh, tubaab rek ngay wax ci français. ah d'accord ndax xam nga dégg-dégg yi bokkul dégg nii bokkul ñii déglu bokkuñu

Euh, ñu mën a recevoir ñi nga xam ne dañuy ñu ruux affaire mbas mhm. parce que clinique bi dafa amoon ñuy euh, ñuy tester bi laaj la tamit li ngay euh, li ngay sentir li ngay yër ci sa yaram bu ñu rox Covid ñu recevoir la ci camion bi daal la faj ba mu yàgg sax camion boobu ñu man ci ñu mën jëne ci hospitalisé ay nit mhm. yàlla dimbali ma ci sax ay nit ñu baax am na benn restaurant bu nekkoon ci clinique bi ñu dindi ko def ko juróomi néeg juróomi néeg individuel parce que mbas moom doo mën a boole nit ñi mhm. ku bon bon cinq places yooyu nag bi ñu dawee ba mbas mi gën a tàng euh, doyul woon foofu tamit lañ jël euh, benn système ñu bloqué benn ascenseur boo xam benn buntam spécial moo xam ne daf lay yëgal quatrième étage foo xam ne tuuti foofu tamit ñi amoon mbas mi lañ fa def bon ba yàlla def ñu tamit ba mbas mi wàññi woon premier li ñuy wax première vague euh, ñu demoon sax ba fermé service yi jëlaat li ñu doon def mais ci deuxième mbas bi nag man gaaw naa ci jóg depuis novembre laa ne leen am na lu xew te bi nit ñi di commencé di ñëw dans le privé xam nga da ngay xam ne am na lu xaw ci dëkk bi. Mhm. waaw foofu sax laa bëggoon ñu taxaw ci ndax xam nga ku ne privé moom xel day dem ci fay ndax euh, maanaam dafa am ku wuute charge yi dafa dafa dafa gën a diis ba tax ngeen yokk la la nit ña daan fay wala ndax da ngeen ci dugalu woyofal ak njàppandal nu mu tëddee. non kooku moom euh, vraiment yokkuñ ci dara. yokkuñ ci dara te tey fekk sunu dépense yëpp a yokku nag. Mhm. sunu dépense bi yëpp a yokku bi ñu amee premier kii bi rek couvre-feu bi rek passe employé rek dafa yokku woon dama leen mujjee obligé dafa leen prime mais maladie, c'est une visite c'est une chambre un euh, oxygène oxygène nak problème de privé, de privé mais li ci malade consommer koy wax ci francs d'oxygène. oxygène bobu presque par jour cinq bouteilles yu di euh, malade le coronavirus moko teurelon bien sûr corona coronavirus, ma mhm. voilà corona corona dañuy ne oxygène mu parce que feebar bi ci dënn bi la nekk te da waxoon naa leen ko ba mooy euh, comme les kii rek euh, tissu nga collé ci goudron ah bu mu yàgg nga collé ci goudron bi goudron bi am plastique oxygène sax bu ñu la ko jox du tax mu jàll ci sa yaram bon il faut ñu jox la lu bëree bëri pour que vraiment sa dënn fii ci amagul euh, tolof tolof oxygène bi mën a jaar foofu ah oxygène bu war a jaar ci fu tuuti xam nga il faut nga joxe lu bëri. Mhm. kooku mën a doy nit ki. oxygène boobu daal moo ñu jaaxal ba léegi sànq maa ngi ci waxtaan ak euh, monsieur Daf euh, ba ñu nu xool daal yeneen hôpitaux yi ko am mën ñu ko mën ñu ko chargé sunuy bouteilles ñu dimbale ñu si parce que oxygène boobu daal moom a gën a jaaxal ci affaire bon tenue yi ñuy sol tenue yi ñuy sol tamit euh, cent vingt cinq personnes nga war a sol benn blouse bu simple bi jar mille cinq cent ah kooku ay sept cent cinquante mille la may dikkee par cinq cent blouse te boobu mooy bu simple bi nga xam ne ñu ñuy ménage ak ñiy recevoir nit ñi mais boo demee ci médecin yi am na beneen blouse bu ñuy sol boo xam ne dix mille francs la départ wa yàlla def na sax ba mu bari ci dëkk bi mu wàññeeku ba wàcce na cinq cent cinq cent cinq mille francs te loolu dañ koy faral dañ koy war di changer la blouse yooyu ah, dañ koy war a changer benn yoon nga koy sol hmm. benn yoon sax nga koy sol te maladie grave yi sax des fois boo duggee ci benn néeg booy duggaat da ngay da ngay changer beneen bon loolu la charge yooyu noonu daal bëri na bon euh, ministère bi def na geste bi basé hmm. ci sama district ouest bi médecin bi ñëw na andil na ma quand même ci blouse yooyu andil ma ci ñaari carton euh, bu cher boobu boobu di jël euh, dix mille francs mhm. andil ma ci ñaari carton beneen bu jot mille cinq cent bi andil ma ci benn carton bon li ñuy prélevé ci bakken bi tamit andi na ci bon loolu nag laa ñaan vraiment population wala ñuy féete ci matériel boobu ñu dimbale ñu ba ñu bañ a mën a yokk obligé bañ a yokk suñu tarif parce que bu ñu jënd matériel boobu yëpp à ce prix là bu yàggee prix boobu duñ ko mën a garder surtout oxygène bi voilà oxygène bi surtout. jërëjëf jërëjëf jërëjëf docteur Babacar Niang maa ngi lay gërëm bu baax a baax. gërëm it euh, Moussa Sam daf mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen yéen ci ànd bi ak euh, radio future Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi ne woon Aliou Ba ak Amady Ndiaye ci machine bi réalisation El Hadj Ndiogou Diène régisseur d'antenne pod service digital soxna Yacine Pouy la ñu ci andalan mbokk yi jàngeen jëf ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle ak tàgge ci radio Futur media yalla ñu yalla doli jàmm ñeent ak jàmm. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphée Paris ont conçu pour la beauté